ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi rek journée Sidi Diakhaté production le décembre première édition drapeau monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne muy bis bu am solo grand combat dox ci diggante Laay Gote ak Laay Pythagore combat spécial bi dox ci diggante Soxor Kale ak ki nga xam ne mooy Modou Anta numéro muy combat bu am solo yaakaar naa ni ñuy waxee rek yaakaar naa combat boobu rek tey jii ko indi doy na sëkk grand combat ak yeneen combat yu am baax a baax te yaakaar naa bu ngeen gisee présentation yi a seddati waaye xam ngeen ko rakk la ci ambulance mu war a bëri ak ki xam ne mooy Nalla Baye Fall mu naa ni moom lañ naan borom top 5 yi ndax lu mu daan rek top 5 la waaye tey am na bis boo xam ne moom yaakaar naa gars yi nee na yaa ngi doog a am adversaire gis na mu ñëw yor benn tang si tang si mel ni kuy tennis waaye dañu bàyyi rek nga nuyoog sa adversaire muy Weuz Diambar naa la nuyu nañ la. waaw gannaaw boo santee yàlla julli si yonante bi di sant sama ñaari waajur di sant ñu fi teew ñëpp di sant Pierre Sidi Diakhaté mi toog di sant Pierre Pamel Ndiaye waaw ñun moom ay xale lañ lañ nekk R100 doon ay jàmbaar di jaayante wóor na sëñ Touba Mbacke waaw lii du combat sax ba ci sëñ Touba Mbacke du combat dañuy ñaan kay yàlla nañ suñu borom may gudd fan ak wér loolu rek la ñuy ñaan ba bis ba. Mhm. waaw làmb ji nag mooy dàq si làmb ji de. bii nii waaw. billaahi mooy dàq si làmb ji. lu tax na gaa yi xëpp seen bët xool. loolu nga ma waxoon combat bi jàll. lu ma la wax dama koy appliqué. ba sa diggante ak wóos mi ñu ngi ko appliqué. Seera xam nañ dama koy appliqué. xool nga adversaire bi. déggoo ma de déggoo ma de man la naa la Baye Fall. yow la kay. déggoo ma de ñëpp ñëw seeraan ñu xool gis ni may def kii. Seera Fall xam na ko na ñëpp xëpp seen bët xool. woos nuyu nañ la. waaw bëgg naa la Kara di di nuyu Père Sidi Diakhaté bu baax di ko sant di ko gërëm ak. gars yi nee nañ borom top sec nga jël de. dëgg la xamal nuyoo pare rek kii naa ñëw si moom léegi maa ngi nuyu waa Teeka Teeka gi ma jógee maa leen nuyu bu baax di sant sama yaay di sant sama maa ngi nuyu sama sëriñ Cheikh Omar Ndiéguène damaa bëgg mu jàpp ci combat bi bu baax xam ne combat bi combat am la naa la mi amul ma amul ma wax ak moom. kii nii naa la mi borom top sec. dina xam ne am na mbër de barki Alxuraanu Karim. gars yi nee nañ fu ma la jàppee da ngay bëre fa ma jàpp dama lay bëre te dama lay daan ci kàttanu yàlla ak baax yéen ngeen di kaay leen jigéen su ma la jàppee làmb ju jeex lu leer laa la expliqué nii nga am mbër ma doole mbër ma laay ka te doo ma lu leer laa la expliqué nii daa mel da lay xaw a soofa booy teegaa la man du ma ragal kii maanaam li muy geste yi muy def nii miis naa ko ay mbir booy yu ko gën a ñàng fi ne man taxaw boo boo duggee taxaw laa jël wër jàmbaar gis nga teg si bi mu yor ma teg si bi day dërëm kii ma yow ko gën a xaat foofu day xaanju rek teg bii bi du dërëm kii ma ko jàppee lamb bi daa mel ne affaire yi ci la nekk waaw may teg teg bi day dërëm kii ma ko jàppee lamb bi day jeex taak lu leer laa la expliqué nii. nee na teg bi da ngay sóob nii. waaw yàlla baax na. Hmm? yàlla baax na kay. ñun xola moomeewu ñu sax wax ju bari dañuy wax tuuti jëf lu bari. mais confiance bi ngay dégager. déggoo ma de ñun ay xale lañ ay xale lañ te lamb dañoo yaakaar. loo indi fekk fi ay tout tànk ñoo topp suñu ginnaaw ay xale ndaw wër na Serigne Touba kii maa moom du combat wër na Serigne Touba Mbacke moom du combat de après après lamb ji ngeen comprendre après lamb ji moom xamante bu baax a baax a baax kii bu ñu jaaroon suruk bu jaaroon suruk fu ma ne ko jaaral fa lay jaar seerafaal xam na ko fu ma ne ko jaaral fa lay jaar alxuraan karim fu ma ne la jaaral fa lay jaar barki seerafaal yow fu ma ne la jaaral fa mu taxaw ma tëgg ko ni nga naa la man a yow faaw ñu bëri mu saaga ma ndey ma dugg ko ku RK bi teppee ko ci la ma ci la ma bett ginnaaw jam ma daw yow booy amal nga ma bor barke maam Serap Fass ma jàpp nga xam lépp dëggal sa bopp lu leer laa la doo dëggal sa bopp ndax ma yow dox sa kaw barke alxuraan dëggal sa bopp lamb ji mooy daal ci lamb ji xale bu ndaw laa ne sama yoon doo maag yow bu la neexee ñu samp xeex 10 minutes maag yow bu la neexee ñu samp xeex 10 minutes Cheikh Ibrahima Fall xam na ko déggoo leen mbër li nga jam yow dama lay ñaan ma daw bul daw dama lay laaj ma a métti eh, a métti fop avance duma mësee dellu avance lépp mbër si am na yàlla moo wax man ñu tëgg suñu combat ba ñu ñëw ñu ñëw moom waa kii xool nga toll nga toll nii ah. dama comme xale da ngay sóob rek yow mën naa xam xale bu ndaw la ma am doole foo ma sama bopp de lu leer laa la gaa lay wax après la gars ma après dañu comprendre woote leen may ma woo ñu may woo pare parce que ñun daa am lu topp suñu ginnaaw mhm. yaa ngi dégg fu ma la waxee mhm. R100 moo topp suñu ginnaaw R100 mhm. Sampaate yaa ngi dégg fu ma la waxee maître Ousmane Diagne kooku noonu man oma fayam maître Ousmane maître Ousmane Diagne aw ma fayam yaa ngi dégg fu ma lay waxee ñun bu ñu doon xale ba léegi dañuy sama papa daan jàpp sama loxo du ma yóbbu biir këram yaa ngi dégg fu ma la di ko wax làmb ji nii mu gën see jàpp comme làmb jee ni mu si jàppee woon jël xaalisam bu bari may ma xoolul man xale laa xoolul dara ku dëkk R100 da lay jàppale maître Ousmane Diagne maa ngi ñaan mu ñëw jàppale ma si bis bi ndax moom amu amuñu lu dul moom jibiloo maa ngi koy woo borom Touba Peku jibiloo borom Touba Peku maa ngi lay woo nga ñëw jàpp si béy bu baax a baax a baax a a baax béy nga jàpp yaa ngi dégg fu ma la wax béy waa terminus maa ngi woo maa ngi woo waa terminus bu baax a baax waa Sampaate waa Sampaate di jël nuyoo di ko teg si père Jibi Diagne maa ngi koy woo Baye Faali foofu maa ngi leen di woo waa rii maam Marema Sëy waa rii maam Marema Sëy maa ngi leen ne foofu maa ngi woo tout temps ne terminus yëpp maa ngi woo koy woo bu baax a baax a baax mu jàpp si sama mag Xaadim ngi koy woo depuis Gambie bi mu jàpp si combat bi maa ngi koy woo di woo waa Seras waa Seras ama seen fay di sant tout tànk yi nekk termis man tout tànk yi la am ñun bonuñu làmb moo njaboote ñun bonuñu làmb mbër day dafa njaboote barki Serigne Touba Mbacke ñun bonuñu doonuñu ko bon te làmb ji la gars yi di xippi seen bët di xool ku ñëw stade di nga bëgg làmb ji nii mooy dàq si làmb yi woosu wooteel am nga combat bay moo nga man daanaka samay bee jeex na man jeex na i bagay day jënd bee yëpp Guèye Baba ku ko xam si ku ko xam si waa ci taaxaw day jënd béy yëpp. booy bi moom nee na maa nuyu waa mouvement bi waa mouvement taaxaw bi maa leen nuyu. Ada Raay ba Kaw Sara Fall Madina Fall boo yëpp maa leen woo simal bi nan daw booy bi day xaar su ma ko jàppee lamb ji jeex maa ngi woo ñëpp ay la la la laay kii maa ngi koy woo. laay bu keneen maa ngi koy woo ma jox xaalis yu bari xaalis yu bari la may jox di jënd ay béy yu bari di ma ko jox Ousseynou Ousseynou Mbaye mu nekk maa ngi koy woo si combat bi mu jàpp sama jarbaat bi di woo sama mag Malick Fall Malick Fall lamb ji nag sa lamb la damaa bëgg nga jàpp si Malick Fall damaa bëgg nga jàpp si lamb ji bu baax a baax a baax a baax woo tout temps yi ñu may ma ma am ñu ma may jàppale man xol laay waxee yaa ngi def ma lax daa ngi def ma lax maa ngi woo Bamba Café mu jàpp si làmb ji bu baax a baax di woo tout temps yi nekk termis yëpp parce que man booy laa am quoi aw ma ñu dul booy tout tànk chaque jour dañuy sonn si man di jël seen xaalis di ko def si man te man tout tànk laa yaa ma gën a xam lamb ji nag na ñëpp xip seen bët xool akara ah, waa Ngéyeen dama leen woowu baax waa Ngéyeen sama kër maam dañ daa mouvle def sama def convoi may ma xaalis bu bëri jàpp si combat bi bi damaa bëgg ñu mobiliser nañ ma xaar open press dama koy def sama kër maam open press fa koy defee